dox ci diggante booy Bargny ak booy Pire. déedéet bindu ñu. waaw. arbitre bi sifflé na booy Bargny ak booy Pire. Ndeysaan booy Pire ikiri waalo la nekk moo la woon ginnaaw booy Pire moom nga jàkkaar lool Ndaysaan ñoom ñaar a ngi noonu. Ndaysaan. Boy Pire Boy Bargny. ñaari xale yaa ngi noonu. kii jiital tànk di joor kii jiital tànk càmmoñ. Boy daa bëgg jeexal combat bi. cokkaas na Boy Bargny fay na. da nga joorante wala déet. Boy Pire daa bëgg a jàpp. Boy bañ. Bargny Pire kuy dem Pire faw nga jaar Bargny Bargny Pire booy Bargny Pire booy Bargny ngi dóor booy Bargny booy Pire Bargny nga njëkk a jot doo nga yegg Pire est-ce que mën ngaa teggi ci yoon te doo jaar jëm te doo jaar dina amam déet ñoom ñaar ngi noonu Fadel bu Dakar Buzz mu ngi waaj a avancé dugg ci suñu sang bi <laughs> te bu ko defee ba ak di lay xeex te sama xarit la bëgguma ñu xeex Fadel bu Dakar Buzz dugg na ci sama sang faqat na ko laa ilaha illallah oh! laa ilaha illallah daan na booy pir waaw waaw laa ilaaha illallah waa lii doon wala booy bire daan ah bu ma daanoo programme bi faussé naa ndax li ma jaaxal ki ko indi waalo la nekk maa waaw tabbi nañu fi waalo ah gaay ñu xool